mbeurje lañu sargal tay, te yaakaar naa kuko sargal sargal nga mbuur kuko sargal sargal nga doomi mbuur kon grand ñu ngi lay sargalat bu baax ci sargal bi Cheikh isa def tay fi ci buntu bi ko ak wa benno Bokk Yaakaar grand wax ji benn la te yaakaar frenku la yo na ci kàddu yi Pape amadi Ndaw wax dañuy teunk rek wax ji ñaanal la ndam li yalla na la te nga continuer di téye raaya mbuur ni ko waa doomi mbuur yëpp bëggee nga téye ko ko ci wàllu làmb ji dama am rek benn message bu may lancé ndax gis nañu démb sa ay petit frère yoo bokkal làmb ji te ñoom ñëpp yaa leen formé ñu bëgg nga téyewaat écurie mbuur bépp écurie bu nekk mbuur nañu ñëw nekk sa ginnaaw parce que yaay seen mag yaay seen kilifa ngeen taxawal làmb lépp mu nekk drapo mbuur bu ñu àggee di dem Dakar ni ko waa waay di defee ni ko waa euh, Parcelles Assainies di defee waa mbuur yëpp def benn say nekk sa ginnaaw su ko defee nag làmb ji ñu wane na yow tu es roi mhm. te incha allahu rab da nga koy téye ba ba mu neex la nga jël ko jox ko doomi Mbour ci loolu nag dañoo nekk ci campagne électorale mënuñu wax te duñu ñaanal wér ak wérle sunu candidat mhm. l'espoir de Mbour tey candidat yi nekk

fii ak at incha allah d'ici ñuy def cinq ans ci mairie bi. salaamaaleykum waa Mbour maa ngi leen di ziar bu baax nag di am contentement tey ñëw fii si Médine euh, fekk sunu xarit sunu frère muy Cheikh Issa sant bi nag dama ci ñëw moom moo ci ñëw après. dama yem si Cheikh Issa bi rek mais sant bi après moo si ñëw maa ngi nuyu sama sister sama xarit Sira Ndiaye di nuyu sama frère sama doomu ndey Moussa Loos ak Babacar Seck Mandal ak Mbaye Sarr ak Demba ah su ma limee nag dina gudd trop comme dafa xaw guddi temps bi dafa xaw a xat am naa mbégte ah, Cheikh Issa. man jàppee ko pour politique. sama mbokk la. sama frère la. day xeex pour mbuur. te man sama xeex yëpp sama carrière yëpp mbuur laay xeexal. kon tey euh, bu ñu defee jarole Dakar mu woo ñu pour sargal ñu dañ ciy kontaan ndax dañuy wax ni rek sotti si la ak def si Cheikh saa dëkk bi moo ko ñor pour defar ko. ñun aussi dëkk bi moo ñu ñor pour yëkkati turu Mbour au niveau international kon nag contentement lay am su ma ñëwee tey fekk sama rakk mbër yi aussi ku mel ni Bouba assurance mu jege sa saa lool ak Jordan ak boy yi mu àndal yi yëpp du ma def lu kontaan euh, li Sira Ndiaye wax léegi loolu laay dëggal Mbour amuñu problème amuñu benn problème xale yi démb dañ def lu am solo. Cheikh Issa mi bàyyi yitteem yëpp ñëw teew fa ak li temps bi xat-xat ku nekk xam na ne ñu ngi si pleine campagne kon luñ la may rek ci cinq minutes bu nekk wala dix minutes rek sant leen ko ñu organiser tey cent pour cent mbuurwaa Siré Ndiaye yónnee fa euh, ñu def ma président bi kon nag loolu mbégte bi ma si am ñoom xamul sax fan la toll si man euh, li may ñaan rek mooy su may dem bay bàyyi làmb tey beneen roi des arènes tey bu gis président bi incha allah mhm. nañ si yaakaar bu baax a baax kon nag seen sa kontaan nañu ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla jàppale la kattanal la ndax yow suñu frère nga suñu fierté nga gars yi comme temps dama dafa xaw nag dafa xaw a xat mbégte rek la am tey pour teew fii ndax kii li ñuy waxtaan sax affaire politique moo si gën tuuti mhm. yéene bi mu am ci dëkk bi. yéene bu mag a mag a mag la kon yàlla na yàlla jàppale Sénégal suñu frère sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp wasalaam. Bombardier le grand champion le roi des arènes li ñuy wax roi des arènes un jour roi des arènes toujours Pape Amadou Ndaw nee na un combat deux victoires. ñu lay nuyu bu baax nag di la sargal ci turu benn bokk yaakaar bi yëpp ñoom ñi nga xam ne bi ngay dem Dakar ñoom ñenn ñi ànd nañ ak yow Dakar waaye ñeneen ñi fiñ toogoon dafa meloon ne ñu ngi ak yow ci biir lang parce que ñoom ñëpp deretu nguur mooy daw si seen yaram ñoom ñu leen di sargal bu baax honorable député Sira Ndiaye lim na leen. yàlla daf ñu dimbali ren benn bokk yaakaar képp kuy responsable mbuur ñëpp fàtt seen bopp jël mbuur teg ci kanam ñu bokk si benn liste ñoom ñoo toog nii kon ñoom ñëpp dañu la bëgge bu baax di la sargal wax naa la ne bi ma indil jour bi ngay combat moo tax ni ma nekke woon sa buur nga nekk sama jàmm ma may la pour mois de janvier bi yëpp jël naa sant Sall bi teg na la jël sant Dia ba ba ba janvier jeex nag waaye ba janvier bi jeex nag bu janvier bi jeex premier février nga delluwaat fa nga nekkoon ma delluwaat fa ma nekkoon mais jox nga waaw Mbour mbégte moo xam ne kenn xamul fu mu yem combat bi waxuma la euh, euh, benn combat de mais communication bi nga ko lay taayale ak yar bi nga ci boole ak sedd bi nga sedd suñu borom ak sérieux yi ak professionnalisme bi loolu rek tax na ñun waa Mbour yëpp dañoo fier ci yow ñu lay ñaanal nag dañoo bëgg nga jëlaat couronne bi nga indil ñu ko fii te boo demee ba di retraité nga jël si sa rakk nga jox leen ko couronne bi des fii ñu ngi la koy ñaanal te comme ni ma la ko waxee woon rek foo nekk boo gëstoo li ñu gis loolu defuñu ko pour politique. defuñu ko pour xaar leneen dañoo bokk ñun lépp bi ngay dem géej ci gaalu Duudu Badis maa ngi dem géej ci gaalu Badu suñu ñaari gaal yi di combat ñi demandoo di ñëwandoo kon loolu yàgg na ba léegi saa bu ñu gisantee lañ doon xoolantee boobu ba tey nga xam ne ëpp na fa at moom la ñuy xoolantee ba tey ñu lay ñaanal nag yàlla téyel bu baax boppam bi ci topp mooy ni nga uufe sarak yi rafet na mbuur buñ demee ba làmb am fi succès bii mu fi am yow yaa tax ba pare nga nekk ambassadeur u Sénégal sur le plan international dem ci biti dafa def ay jaroor yu am solo ñuy dégg sa tur ci biti di dégg turu Sénégal ci biti waaye surtout di dégg turu Mbour si foo dem si àdduna bi ñu ngi la ciy félicité bu baax dafa guddi nag te xam naa ne am nga sànq yaa ngi koy wax yeneen obligation waaye sa déplacement bi rey na si ñun bu baax wane nga ñu ne combat bii ñu nekk yow tamit si nga nekk te incha allah incha allah li ngay bugg si mbuur Moussa Loos bii bugg si mbuur mag moom ñu ciy waxtaan muy nekk extérieur ñuy waxtaan si ay projet sa projet yooyu nag daasal yëpp nga téye te xam ne dans quelques mois dinañ commencé di si liggéey parce que suñu dëkk bi dañoo bugg mu nekk dëkk bu set wecc may euh, ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk comme responsable Benno Bokk Yaakaar dans les différents quartiers depuis trente jours yi nii chaque jour ñu ngi def ay proximité pour waxtaan ak nit ñi te li ko waral yëpp mooy dañoo bëgg def campagne bu civilisée bëgguñu saagante bëgguñu xeex bëgguñu xuloo dañuy waxtaan ak nit ñi rek ci liñ leen yéene pour Mbour bu jour élection yooyu ñu solo ba set dem voté yi bulletin Benno Bokk Yaakaar bi ñëpp xàmmee nañ ko buñ paree ñu continuer defar suñu dëkk loolu maa ngi leen si félicité yéen ñëpp bu baax waaye daal xamal ne comme ni ma la ko wax woon rek démarré nañ la reconquête beneen couronne bi pour indiwaat ko fii Mbour foo si toolu nañ ko yëg incha allah liñ ci war a def dinañ ko ci def li Abdou Diouf nag def naa moo ne woon ku def lu rëy am lu rëy waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo la jox un million de francs pour jàppale la ko si waaw si préparation yu jël beneen kuréel bi mu ko kuréel gii nga nga jiite nag bees sa yi jiite na ci wax naa leen ko dinaa la ko waxaat loo leen ciy nekk loo leen ciy décidé foo leen ciy dem boo leen gëstoo di ngeen gis dañ leen ci jàppale parce que jàppale na initiative bu baax la initiative buy yóbbu Mbour kanam la initiative buy yóbbu làmb sa kanam la beneen bi si topp nag. mooy infrastructure yi ñu war a def fii si Mbour pour que mbër yi man di am ay conditions d'entraînement yu baax ak fu ñu mën a def ay mbappat ak ay làmb yu baax loolu incha allah di leen ñëw yàgg sa kuréel googu ñu toog si waxtaan ci projet yi ñu xool naka lañ koy implanté ba Mbour ku bugg a def sport ak discipline boo ci mën a neex nga am foo ko mën a nu mu gën a rafetee ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di la félicité waat yokk sa jàmm bu baax a baax